tasnim online moo leen di may jotaayu koor alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala mbokk yi asalaamu alaykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di ci koor gi di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu nangul ñu nangul leen bu ñu delsi waatee ci jataayu koor yi ñu doon am dañuy waxtaanee tey xadis boo xam ne xadis bu màgg la lu bari ci saxaaba yi nettali ko xudayfa tibnul yamaan nettali na ko ndax xeeti xam-xam bu mel noonu da ko yitteloon lool waaye abu hurayra tamit nettali na ko xadis bi mi ngi saxiixul buxaari ak saxiixu muslim xudayfa dafa wax ne yonent bi alayhi salaam dafa wax ne inna rajulan xadarahu almawt فلما يئس من الحياة أوصى أهله إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا فأوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت فخذوها فاطرحوها ولا فخذوها فطحنوها ثم انظروا يوما راحا فذروه في اليم ففعلوا فجمعه الله فقال له لما فعلت ذلك قال من خشيتك فغفر الله له أمنا تيانا رواية يوخا من تاني مني تي بلغ صحيح رواية برواية أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر فوالله لئن قدر الله علي ولا لئن قدر علي ربي لئن قدر علي ربي ولا لئن قدر الله علي ولئن قدر الله wax ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين قال ففعلوا ذلك به فقال للأرض أدي ما أخذت فإذا هو قائم فقال له ما حملك على ما صنعت فقال خشيتك يا رب أو قال مخافتك فغفر, فغفر له بذلك حديث بي حديث مماغلة دي حديث بوخمني صحابي boo نتلي ne عليه yi والسلام دفل نتلي كم yonent bi alayhi salatu ci yi nga xam ne moom mooy xew te nekk kumpa goo xam ne yàlla daf ko koy xamal mu koy nettali nit ñi mu ne dafa am benn nit boo xam ni dafa doon def ay bàkkaar di nuur ci ay bàkkaar yu màgg ci yenn ci riwaayatu xadis bi nekk ci saxiix ba léegi nekk ci téere yi nga xam ne mooy téere yu wér dañ fay sukkandiku xadis yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañ ne kaana nabashan daf daan dem ci bàmmeel yi di ko sulli di jël yi nga xamante ne bi moom mooy yi ñuy sàngee néew yi jël ko dem di ko jaay ji xeetu bàkkaar yu mel noonu la daan def bi nga xamante ni dem na ba dee dikkal ko xataa ya isa minal minal xayaat ba nga xam ni jàpp na ni fi mu nekk day faatu dafa wax njabootam ne leen ban waajur la leen nekkaloon ñu ne ko waajur bu baax ndax daan na sonn ci ñoom di leen dundal di leen yor ndax nit ñi moom loolu la ñu àttee mu ne leen walakin na ni muznibun maa bi mu wax leen ne waaye moom dafa nekk ne dafa def ay bàkkaar ci digganteem ak boroomam mu daal di ciy teg ne wala in qadara allahu alayya bu fekkente ni yàlla am na ci man mën-mën yàlla jot na ci man am na ci man kàttan ci jot ci man la yucadiban ni cadaaban shadidan wala la yucadiban ni cadaaban lam yucadibu axadan mu ne bu fekkee yàlla am na ci moom kàttan dina ko mbugal mbugal boo xam ne musu ko mbugal kenn dina ko mbugal mbugal boo xam ne bu tar la léegi pour mu rëcc ci jàppub yàlla ak ci mbugalu yàlla mu ne na def loo xam ne bu ko defee yàlla du ko mën a dekkal jàpp na ni mën naa mën naa rëcc yàlla subhanahu wa taala ci loolu muy digle ndax tit gu mu tiit dajeeg boromam yàlla mbugal ko ci ñaawte fi mu doon def kon jaama ngi ni boo xam ne gëm na yàlla gëm na yàlla am na gëm na ni yàlla mooy boromam gëm na tamit dafa def ñaawteef ci digganteem ak boromam ndax xam na bu baax lim def lim wax ne walakinni mudnibun maa rabbi dafa nekk koo xam ni ku bari ay tooñ la ak ay bàkkaar ci digganteem ak boroomam ngëm googu ngëm-ngëm googu rek lu am solo la beneen mbir bi ci des mooy tiit gi mu tiit mbugalu yàlla ne bu dajeek yàlla yàlla dina ko mbugal kon xam na ni li mu doon def yàlla daf ko ko tere te itam xam na ni bu deewee ci yàlla lay dellu te yàlla dina ko xisaab rek leel ko ay jëfam kon loolu yépp mu ngi ci moom waaye fi problème bi nekk mooy li muy sikki sàkk ci ne bu defee lii yàlla ndax dina am kàttan ci mën koo dekkil loolu njuumte lu rëy la def ci wàllu pas-pas njuumte lu rëy la def ci wàllu pas-pas bi nga xamante ni dem na ba toog ak njabootam mu ne leen bu fekkee faatu na nañ ko jël ñu lakk ko ñu incinéré ko comme ni ñuy def ñu ngi ñenn ñiy def di ko to di ci toppandoo ñi nga xamante ni bi ñoom ñooy jaamukati xërëm yeeg xeet yu ci jëm nga xam ne ñoom dañoo yittewoo loolu safara ni seen nit bu faatoo ñu jël ko lakk ko léegi fi mu nekk nii gis nga même tubaab yi dugg nañ ci di ko toppandoo ba léegi ñoom tam dañ koy def donte ñoom loolu nekkul woon seen aada ci li ñu gëm ci seen diine ci christianisme bi nga xam ne moo doon seen cosaan waaye léegi loolu toppandoo nañ ko ba léegi commencé mu nekk lu ñuy tas ci àdduna bi waaye ëpp na nit di faatuñu koy lakk ndax yonent bi alayhi salaam dafa wax ne jullit boo xam ne dafa faatu dañoo war a ormaal yaramam comme niñ ko ormaale woon ba muy dund moo tax mu waxoon ne kasru azmil mayit ka kasrihi xayyan koo xamante ni dafa faatu nga jël yaxam sax damm ko dafa mel ne da nga koo damm bi muy dund mooy kon waruñu ictidaa nit ki warul def lenn loo xam day jalgati war warma ku gëm yàlla moo tax lislaam du jël ay doomam di leen lakk di leen taal loolu ëpp na koo def waaye daf leen di delloo ci suuf si nga xam ne ci la leen yàlla jële woon minha xalaqnaakum wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra ci suuf lañ leen di delloo te loolu mooy gën a wane ne lislaam dina la joxum dina fitra la léegi mu daal di leen wax ne nañ ko lakk buñ ko lakkee nañ dajale matt yu bari ñu lakk ko buñ ko lakkee ba nga xam ne def na doom ba nekk doom nañ jël doom bi ñu xaaj ko ñaari xaaj benn xaaj bi ñu sotti ko si ngelaw li mu naaw dem ci suuf si tasaaroo benn xaaj bi ñu yóbbu ko ci géej gi sotti ko fa daf leen wax ne nañ xaar sax ba bis boo xam ne bis bu bari ngelaw la ñu def loolu ndax jàpp na ni bu defee loolu xëy na dina rëcc yàlla subhanallah li suñu borom subhanahu wa taala wax ci doomu aadama ne wa daraba lana mathalan wa nasiya xalqa qala man yuxyi alcidama wa hiya ramim qul yuxyiha alladi anshaaha awala marra doomu aadama dafay nekk di jaaxle ci mbiru yàlla di ci posé wu ay question di wax ne kan moo mën a dekkil ay yax yoo xam ne dem na ba fanax suñu borom subhanahu wa taala ne yàlla mi nga xam ne moom moo ko bind bind ko njëkk ga yàlla moo am kàttan ci dekkilaat ko ndax yaakaar naa lu fi nekk dee ñu dekkil ko gënul jafe li fi nekkul woon nga xam ne matière première sax amul ndax yàlla buy bind soxlawul matière première comme ni doomu aadama di def doomu aadama day transformer munta créer création doomu adama transformation la matière lay jël transformé ko wala mu mélanger ay matière mu am lu ci juddoo mais loo xamante ni lu neeyaan la lu existé wala doomu adama mënu ko amal yàlla nag day fekk loo xamante ni bi dafay nekk lu amul amul dara amul matière première yàlla amal ko ci kàttanam هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا أغلب وقنا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا yàlla subhaanahu wa taala moo la sàkk fekk ne nekkoo woon dara dara dara bi mu koy wax Zakaria bi muy jaaxle ci naka la ko yàlla mën a maye doom fekk na mu ngi màgget léegi bi mu waxee loolu doom yi daal di koy def daal di lakk seen waajur ba mu xëm ñu daal di jël doom bi tasaare ko ci suuf si tasaare li ci des ci géej gi suñu boroom subhaanahu wa taala wax ak doom bi dani suuf si génneel li nga jëloon ci doom ji na géej gi génneel li nga jël doom bi dajaloo yàlla ne ko nekkatal diw kuuni fulaanan fa kaana yàlla daf koy wax ne ko nekkatal diw innama amruhu ida araada shay'an an yaquula lahu kun fa yàlla mbiram ci màggaayam ak ci mën-mënam ak ci kàttanam bu bëggee amal dara dafa naan ko amal mu am subhaanahu wa loolu dimension la boo xam ne dafa dépassé doomu aadama waaye yàlla kàttanam foofu la toll yàlla ne ko nekkal mu nekk mu nekkaat jëmm ju ne jamet ci kanamu yàlla yàlla ne ko yow sama jaam lan moo la puus ci li nga def bay remettre en question kàttanu yàlla ci mën laa dekkil njuumte lu rëy loolu lan moo la ci yóbbu du dafa weddi yàlla de du dafa gëmul yàlla ndax wax na li muy wax doom yi mu leer nàññ ci tiit gi mu tiit dajeek yàlla yàlla mbugal ko ci xadis bi nekk ci musnad imaam ahmad dafa wax ne lam yaamal xayran qat illa tawxid xadis bi nekk ci musnad imam xadis bi ci niñ ko solo ci musnad imam ahmad ci riwaaya bi nekk ci musnad imam ahmad daf ne yonente bi alayhi salatu wasalam daf ne kaana rajulun mimman kaana qablakum lam yaamal xayran qat illa tawxid dafa am kenn ci ñi leen jiitu woon koo xam ni jëful lenn lenn lenn lu baax lu dul tawxid mooy kon tawxid mi ngi ci moom gëm yàlla mi ngi ci moom ci njeexitalu xadis bi tamit mu feddali waat loolu di wax bi nga xamante ne yàlla jégal na ko mu ne fa gafara allahu lahu wala fa gafara lahu biha walam yamal xayran qat illa tawxid mooy jëful lu dul wéetal yàlla gi nekkoon ci moom ak gëm gim gëmoon yàlla nga xam ne du ko bokkaale ak dara malgré def na njuumte lu rëy lii mu def ci digganteem ak yàlla malgré bàkkaar yi bari na lool ci ñaawteef bu toll ne dem di sulli ay néew di leen jalgati di di jël ndax loolu xeetu jël la jël lu nit ki moomul la li nga xam ne moom lañ leen suulaalee ci njariñ malgré ñaawteef yooyu yépp mu def waaye waa ji wéetal yàlla mi ngi ci moom ngëm yàlla mi ngi ci moom te bi muy dee loolu la yóbbaale dajeeg boroomam bàkkaar yi bari lool mu taxaw ci kanamu yàlla yàlla ne ko demal jéggal naa la demal bal naa la loolu di wane yaatuk yërmande yàlla ak yaatuk njëggalam waaye ci benn condition condition bi mooy bañ a yóbbaale bàkkaaru bokkaale bañ a yóbbaale bàkkaar bi yàlla wax ne ku ko indil la ko jéggal inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha yàlla wax na ko ñaari yoon ci alquran ci suratu nisa yàlla suñu borom du jéggale ñu bokkaale ko ak lenn lu mën a doon leneen lu dul loolu yàlla mën na ko jégal jaam bi kon nit ki li muy war a jàngee ci lii mooy na xoolaat pas-pasam na xoolaat ay jëfam ci digganteem ak yàlla jéem a fexe fóotu raxasu ci lépp loo xam ne bokkaale la fii ci àdduna balaa muy yóbbaale bàkkaaru bokkaale ëllëg muy nekk gàllankoor buy dox digganteem ak am yërmande yàlla ak njëggalu yàlla subhaanahu wa taala leneen li ci des mu góorgóorlu ci ay jëfam jëf yu baax bañ a tamit dégg genre xadis yu mel ni tax mu naagu ci ne léegi bu amee tawxiid wéetal yàlla rek lu ko neex mën na defati ci ay bàkkaar déedéet ndax nit ki du gaar boppam ci ay fitna nit ki du gaar diinam ci ay fitna di demee yaakaar rek yaakaar yaakaar dàqontewul ak góorlu sa diggante ak sa borom ndax yàlla mbiram màgg na màgg gu toll ne tere na la ay bàkkaar tere la ay mbir jéemal góor góorgóorlu sa kéemtalaay kàttan bañ cee tàbbi boole kook di yaakaar yërmande yàlla ak di séentu yërmande yàlla xam ne li ngay def am na ci loo xam ni sax mata di tax na gàttañ du mun na cee am kon ñaanal yàlla boo liggéey boo ñëwee yàlla jéggal la ko yàlla yëram la waaye ci tayeef di nuur ci ay bàkkaar di di ne yaa ngi dundee lii nga xam mooy mooy mooy yaakaar loolu wérul ndax yàlla subhanahu wa taala bi muy melal ñi nga xam ne ñoo ko yaakaar yaakaar yërmandeem daf ne inna alladina amanu walladina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah yàlla subhanahu wa taala daf na ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla ñi nga xamantene bi dañuy hijra di gàddaay di di jéem a fekk ak sàmm seen diine ba dara du ko agressé di leen ci di leen ci fitna di leen ci bunu xatal loolu seen diine jaral leen ñuy daw ngir rëccale seen diine di jihad ci yoonu yàlla di dimbali yoonu yàlla di taxaw yoonu suñu borom subhanahu wa taala nee na ñooñu nga xamante bi ñoom ñoo am melokaan yu mel noonu nee na ulaika yarjuuna rahmatallah ñooñu ñooy ñi yaakaar yërmande yàlla subhanahu wa taala ñooñu ñooñu yaakaar yërmande suñu borom subhanahu wa taala kon loolu li muy tekki mooy ki yaakaar yërmande yàlla yaakaar gi mu yaakaar da koy puus ci muy jëf da koy puus ci muy def voilà nit ki du yaakaar ne dina at mi ci benn concours bu muy def dem toog këram ne am naa yaakaar ci ne dina at mi waaw mais ki yaakaar dëgg dëgg dëgg dëgg yaakaar bu dëggu mooy ki nga xam ne dafa dem réviser jàng ba sonn def lépp lu mu war a def buñ ko joxe épreuve yi mu góorgóorlu ci kemte lay katanam pour tontu tontu ba gëna rafet bu génné naan wa ma ngi am yaakaar ci ne dina at mi ndax li ma révisé macha allah baxna te liñ ma jox timit yaakaar naani ne tontu non la koku bo boba ku dégg ay waxam diga xamné xam wax lu raisonnable la lu yanu maanaa la waye ka dem tok kërëm wala ka nga xamné da doon yendo naan ataya ka waxtaan xolul ay leçon jàngul yitteelu ko wala ki nga xamné dañ ko jox feuy bi mu jël ko xoti ko delloo ko wala sax mu ne du tontu kooku bu génnee wax nit ñi ne yaakaar naa ne dina at mi nit ñi lañ koy xoolaat ne kii xanaa àndul ak xelam loolu kon li muy wane rek mooy yàlla subhaanahu wa taala yërmandem yaatu na na jaam bi góorgóorlu def kémtalaay kàttanam te jiital tawxiit ci lépp mbiram ndax bu ko yóbbaalee leneen lu mu mën a yóbbaale ci ay rëcc-rëcc ci digganteem ak yàlla yàlla mën na ko ko jéggal ndax kii bàkkaaram rëyoon na lool ba mu yaakaar ne moom day alku waaye loolu yépp ñàkk xam yàlla la rek ndax yërmande yàlla subhanahu wa taala bu ko nit ki xamee xam ne amul bàkkaar bu mënta yàlla jéggale bu yàlla mënta jéggale waaye nag léeg-léeg ragal gi nit ki ragal tamit delluwul ci ñaaw njortu ci yàlla waaye ci boppam la la ñaaw njortu ci nangu gi mu nangu ay tooñam ci digganteem ak yàlla lay yaakaar ne moom dafa mérité ñu mbugal ko dafa mérité ñu mbugal du caagante ne dafa jàpp ne yàlla dafa soxor waaye moom moo jàpp ne moom moo tooñ gu rëy goo xam ni mérité nañu mbugal ko waaye li muy foog foog foog loolu yépp terewul yàlla mën na ko jéggal moo tax des fois nit ki dafa war a bàyyi xel ci li muy xalaat ci digganteem ak yàlla diggante xalaat boo xamante ni ci yàlla nga ko xalaat ak loo xam ne ci sa bopp nga ko xalaat exemple bi ñu ciy joxe mooy léeg-léeg yenn kóolu yi nit ki wax ne wóolu na ko yàlla bu fekkee danga ko koo seetlu dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg xam ne naagu la gën a nekk ka wóolu yàlla naagu ko gën a wóolu ya ka yàlla ndax léeg-léeg nit ki mën nay njortu ci ndax yàlla dina ko dimbali ndax yàlla dina ko defal nàngam du ne dafa njortu dafa am njortu lu ñaaw ci yàlla wala day sikki sàkk ci ndimbalu yàlla déedéet waaye ci boppam lay sikki sàkk ndax moom mel na nu tax yàlla war koo dimbali ndax moom mérité na ndimbalu yàlla am déet ci loolu lay xaw a sikki sàkk moo tax xëy na muy insister ka tiita ka yu mel noonu moo tax kooku fu mu toll day tiit ci boppam jàpp ne moom xëy na àggul fenn fi xëy na moom yelloowul yenn yi xeyna mom nangam xeyna mom nangam mais leg leg ki waru ci bopam mom day jaakaar ni mom lu mu fëgg dënnam wax ko yàlla dina ko def day ag fofu ci mbiru yàlla te naagu ci mbiru yàlla lolou njumte lu reey reey jam jaam warul naagu ci yàlla yonent bi nga xamne ali sallallahu salaam wasallam mo gëna sori ci yàlla ñun ñep gën ñoo jégué yàlla gën ñuko xam musul naagu ci mbiru yàlla bu daan ñaan yàlla da koy ñaan ñaanu ko xamne da ragal ñu bañ ko nangu gis nga kérok badar bi mu waré jaamaarloo ak nonam ci dajalo daje bu njëkk mu ànd ak mbooloo mu ndaw ci sahaba yi préparé wuñu woon pour xeex far yàlla dajale leen ak seen noon ngir am lum ci leerale ngir am lum ci leerale ndax li yàlla wax mooy yéen li ngeen bëggoon mooy dajeeg ñi nga xam ne mooy caravane bi yor marchandise bi jóge sham yàlla moom subhanahu wa taala bëggalu leen loolu lim leen bëggal mooy ñu dajeeg seen noon ba kenn ku nekk xam boppam ba yàlla yëkkatee ci mbiru julit ñi loolu lim leen di jox ci ndam ak lim leen di yëkkati ak lim leen di jariñ le alal jee ñuy séentu jariñu leen ko ñu war a daje ñee génn nekk mbooloo mu bari ànd ak ay seen yi ngànnaay préparé ne ñoom dañuy ñëw pour xeex te ñi bi ñu génn préparé wuñu woon pour xeex te mbooloo mu néew lañ yonent bi alayhi salatu wasalam keroog dafa taxaw di ñaan di yëkkati loxoom naan yàlla liñ ma digoon yàlla liñ ma digoon yàlla mbooloo mi buñ leen alagee ku lay jaamu do fi nekkati yow sama borom nag ma dimbali dimbali julit ñi di ñaan ba kaala gi mu tegoon ci mbagg mi wadd ndax loolu sikki sàkk ci yàlla la sikki sàkkawul ci yàlla sikki saa sikki sàkkawul ci ne yàlla dina ko dimbali moo ko jox diine ji te dina ko ci dimbali waaye suñu borom subhanahu wa taala moo bëgg jaam boo xam ni bu koy ñaan da koy ñaan ñaanu torox toroxlu ñaanu ku xeeb boppam ku jàppewul boppam dara fa yàlla yàlla loolu la bëgg waaye bëggul ku koy ñaan ñaanu ngand ngandulu yàlla bëggul loolu lu jaam bi gën a wàcce boppam gën a doydal boppam ci kanamu yàlla rek yàlla di ko gën ma tawaadaa ahadun lillahi illa zaadahu llahu rifa aw illa rafaahu llah képp ku wàcc boppam ngir yàlla yàlla yëkkati ko képp ku wàcc sa bopp ngir yàlla yàlla yëkkati la loolu moo tax boo gisee yonent bi alayhi salatu wasalam bu daan génn di ñaan di def jullit baawu naan di ñaan ay yére yu yu sagare la daan sol nee da daan génn ci anam bobu génn ci anam boo xam ne anam bu dëddu la àdduna ngir wane ak suufeem ngir toroxlul yàlla loolu kon liñ ci jàngee di ko ci jëlee rek mooy jaam bi bañ a naagu ci digganteem ak yàlla waaye muy ñaaw njort ci boppam tey rafet njort ci yàlla bu ko defee di gën a góorlu ci kéemtalaay kàttanam ci digganteem ak boroomam ba noppi tamit bàyyi xel bu baax a baax lépp loo xam ne day yàq diineem ci xeeti bokkaale yi moo xam yi ci feeñ ak yi ci nëbbatu amaana bu góorgóorloo ci loolu faatuwaale ak tawxiid tawxid boobu dina ko jariñ ci digganteem ak boromam subhanahu wa taala leneen li nekkoon ay rëcc rëcc ci wàllu diineem yàlla jéggal ko ko yàlla nañ yàlla jéggal defal ñu yërmandem ci àdduna ak alaxira هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تسنيم أونلاين مولن دون مي جوتايو كور membre yi ci groupe dégg diine ci mbooleem ay sipooram ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullah umpule woo leen mukk taxawaay bi dégg diine am ci tasaare xam-xam ak yaatal daawa sunna ci biir senegaal ak li ko wër doomu réewum Sénégal di ci jëriñu ci biir réew mi ba ci bitim réew mu leen di jottali xam-xam bu dëppook alquraanul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ak fu ngeen mën a nekk ci réewi àdduna bi liggéey bu rëy bii nag yeyoo nañu taxawu ko saxal ay dëggoom ba mu gën a mën a taxawe liggéeyam looloo tax dégg diine aajowoo yaatal couverture ci yeneen région wu Sénégal yi ci lu génn Dakar ak di beesalaat ay matériel am saa su nekk ak lu koy jàppale ci yembal ay frais de fonctionnement wam looloo tax direction bu dégg diine ubbi buntu yiw tàllal ci loxo ay aboneem ak ay membram ci ay cotisation yoo xam ne nag coobarewu rekk la lu ko tàmbalee ci 200 francs ba ci 500 francs ba ci lu ko ëpp ci weer wu nekk loolu mën a doon ndimbal lu rëy ngir dégg diine gën a mën a taxawu liggéeyam ngeen mën a joxe seeni participation jaarale ko ci numéro bile 78 514 78 38 ngeen mën ko jaarale ci Wave Orange Money Wizall Ria wala Western Union. dégg diine seen loxo ci biir ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam.